asalaamaaleykum mbokk sénégalais yi tubaarkàlla macha allah déwénati leen fekkee déwén baal leen ñu baal nañ leen yàlla nañ yàlla boole jégal ñëwati nañ macha allah ci lu bees tàq muy lan dëwënal tubaarkàlla macha allah fii ci télévision bu mag bi ñu naan la 7TV la télé qui nous ressemble et nous ressemble télé bi ñuy nduru ba noppi te di ñu dajale tubaarkàlla macha allah tey moo fi nar a dajale ay artistes yu am solo loo xam ne surprise lay doon tubaarkàlla macha allah dara do doy tubaarkàlla ñu ngi leen di nuyu di leen déwénati di ñaan yàlla ngeen baal ñu baal nañ leen yàlla nañ yàlla boole jégal di ñaan yàlla yàlla def ci suñu Sénégal gi jàmm def fi sutura def fi teraanga daay man ñu ñaan leen ko tubaar tubaarkàlla spécial ndëwënal moom la ñu wax ak yéen kuñ ci àndal télévision bu mag bi 7TV di nuyu nag may bu baax di ko baalu àq di nuyu Papis Mbay di ko wax aadama tubaar tubaarkàlla noonu lañ koy ñëwee wax ko Penda tubaarikàlla macha allah wax ko tubaar Maguette kàlla ba ci euh, suñu càmmiñ yu baax yi nga xamante ni ñoom ñëpp gën riis la 7TV day télé boo xamante ni ñi ci nekk ay leader lañu am fulla pàmbende ngi noonu tubaar tubaarkàlla lu mu defarul baaxul ñu di leen wax nag ñu ngi ci tubaarikàlla commencé ah Mara Thiam tey dara du sedd de Mara Thiam tubaarkàlla sama doom ju góor ji leen a demoon tey ci guy gi macha allah jëlee leen fa lu ama ama ama am solo tubaarkàlla tam man mi ngi koy caali tubaarkàlla taxaw jël naa ay surprise artistes yoo xamante ni ay ndaanaan lañu ndaanaan nag foo ko déggee dañ naan ndaanaan kuri faddirin tubaarkàlla moom lañ leen indi ngeen teg foofu seen baaraam ñu ànd ak yéen kàlla macha allah dem ci maaraacaam nuyu nañ leen déwénati jërë ngeen jëf mbokki xarit yi béggati nañu bu baax baax dajati ak yéen chaîne chaîne de télévision bi ñu nuru ba noppi di ñu dajale la 7 TV la télé qui nous ressemble et ñu leen di déwénati di leen baal àq te di leen baalu àq ci bésu tay bi nga xamante ni dafa tombeek bisu it di bisu julli di tabaski di feet boo xamante ni àdduna wërgal këpp rawatina jullit yëpp dañu koy màggal 7 euh, TV baaxoo at mu jot muy ànd ak yéen di seet ñenn ci ndaanaan yi ci réew mi ci célébrité yi di toog ak ñoom di waxtaan ak ñoom tey mu fas yéene nekk benn spécial tabaski boo xamante ni édition bu spéciale lay nekk plateau bu spécial lay nekk entretien bu spécial lay nekk li ko waral mooy dañuy dalal koo xamante ni c'est une personne spéciale li tax ma wax c'est une personne spéciale mooy nit la boo xamante ni dafa am ay facettes boppam dafa am style boppam style bu particulier mu mbëru làmb boo xamante ni c'est un champion boo xamante ne il n'est plus à présenter il a su s'imposer fexe ba bokk ci làmb dugg ci làmb ci atum 2006 jàpp 2007 tel cee wane boppam fësal ci boppam tegale benn dynamique de victoire bu am solo ku daan Siteu ku daan Nees ku daan Ama balde ku daan mbay Diouf ku daan Amaneex kooku xam nga ne champion la il se nomme de son vrai wala boog tur bi ñu ko xamee ci làmb guy gi am tur boo xam ne da koo dab ci biir làmb ñu doon ko wax le roi du simpi lan moo ko waraloon mooy mbër mu mu jàpp rek day aras ba ci kaw dóor ci suuf gars yi woon ko itam ci style bi nga xamante ne amoon na ko ci ay kàddoom indi kàllaama gu bees di wax français yoo xamante ni li yàlla xam doy na tey on aura le plaisir ñu ànd ak moom gunge suñu ay téléspectateurs su les antennes de la 7TV ñu ngi kontaan bu baax baax fekk si ko fii ci biir këram fas yéene xam ana nan la jullee ana nan la passé feetu tabaskeem lu jiitu loolu ñu dalal ko bàyyi ko mu nuyu ak suñu ay téléspectateurs ak sénégalais yëpp guy gi c'est un ñu ngi kontaan ci seet bi ñu la seet si waaw Mara maa ngi lay fay di wax ni onze billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim dina ba sant yàlla julli coonte bi sant suma ñaari waajur di nuyu waat waa Thiénaba Seck bu baax di ñaanal baay As Seck yàlla oyofal yéen bi sama xalifa général maam Cheikh Ahmed Tidiane ak Baye Abdourahim yàlla yóbbale àjjana yàlla munu ko yàlla yàlla def di nuyu waa Thiénaba bu baax a baax a baax nuyu suma papa suma yaay suma grand frère Modou suma rakk Babacar suma rakk Ndayaram sama soxna bébé bi maa ngi koy nuyu bu baax. Mm-hmm. nuyu waat waa Thiana bu baax bàyyi ma kenn suma absa suma soxna grand frère maa ngi koy nuyu bu baax a baax nuyu sama sama sama yaay waree saar. Mm-hmm. nuyu képp koo xam ne wax dëgg yàlla da ngay jàppal guy gi di ko bëggee. di nuyu waa 7TV. ah bien nous sommes nous dans nous rek. nous sommes nous dans nous benn la waaw di la nuyu di nuyu seen directrice bi xaw ma directeur bi. waaw Maimouna Ndour vraiment. télé du sama du du ma gan ci moom. yàlla bu bëree mais léegi boo nee Maimouna Ndour kay war nga xam ne directrice la. waaw non damaa jiw man man maa la yàlla topp ma ci ay français. déedéet voilà man yàlla topp ma ci dara voilà. di nuyu Maimouna Ndour vraiment. Mhm. c'est pas la première fois c'est la six fois vraiment kon loolu télé bi suma télé la. dëgg la ñaan yàlla rek yàlla defal leen jàmm yéen ñi fa nekk ñëpp. Mhm. Euh, parce que loolu mooy àdduna àdduna wax dëgg yàlla bu ngeen nekkee li ngay ñaan li ngay njëkk a ñaan mooy yàlla defal leen jàmm ci liggéey bi ngeen liggéey hmm. ci ngeen gën a mën a retrouver lu bëri bëri te yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla nuyu sa caméraman yi nga àndal hmm. nuyu sama waa koñ waa ku ci mel ni Pape Ndoye euh, John Sina hmm. Bolo Pape Ton sama taalibe Lamine Niass Omar Der Fa Niass sama dëkkandoo yi waa kër mère mère mbay waa kër Cheikh Ndigal Fall yi maa ngi nuyu bu baax a a baax koo xam daal wax dëgg yàlla di leen baal àq nag di balaax àq ñëpp di wax ni déwénit yi di wax ne bonne continuation bonne révention ba longue vie ba longue santé ñu ñëpp dund amiin yaa rabbi ñëpp lu dund waaw Mara di la wax ni kan <laughs> ñu xaar question rek question réponse ñaan lépp lu ñu fi wax rek muy euh, muy loo xam ni day neex sénégalais yi mhm. neex àdduna yàlla mosuñu ci accident làmmañ yàlla mun na ko yàlla na ko yàlla def amin yaa bi question yi moom dañu koy tàmbalee ci bisu julli gi tey tabaski la euh, guy gi doomi jullit xëy tabaski tey bëgg ñu xam nan ngay passé sa tabaski boo xëyee julli ji rey sam xar euh, nan la journée bi di déroulé waaw Mara da ngay xëy euh, nuyu paa bi sa papa moom vraiment loolu yar nañ ci mhm. waaw ndékki ba suur nag mhm. dañuy ndékki bu ndamee ñun dañuy naajee naajee jógee dànk jullikaay quoi heure bi ñuy jógee dànk jullikaay heure boobu noonu day naaj parce que midi nga doog a rey ñëwaat bala nga añ day naaj waaw boo ñëwee fekk bee bi dina defar lakk gi ba pare nga ba ñëwee nga doog a lakk quoi nga doog a lekk lakk bi quoi xaaraat ba ngoon bi nga doog a dawalaat bu ko defee nag boo dawalee ba pare ànd ak soxna si xam nga dem ci sama gars yi ami d'enfance ku ci mel ni Mansour Ndiaye Cheikh Mbaba hmm. Mot sekk Gora Ndiaye maam Serigne Niass Turquie ak Baye Serigne Sylla Turquie mm-hmm. ak maam Serigne Turquie ñu leen nuyu bu baax a baax fam ami ami d'enfant bi mm-hmm. xam nga ñoom ma dikkee xam nga ñoom Alioune Diop ñun ñëpp ñu toog waxtaan ak ñoom Talla Ndiaye doogo mu nekk retrouvaille waaw retrouvaille parce que ñun ñi ma lay wax ne ami d'enfant la ñoo defandoo lépp mm-hmm. waaw ñoo defandoo lépp vraiment ba tey mi ngi rafet kon defe naa duñ mën lu dul rek xam nga sant leen bu ñuy def émission wala ni carrément xel mi jugal leen ci parce que loolu lépp boo seet depuis 1986 ba tey foo xàmmi ko nga euh, nga kii kat wala lii ñun ñoo defandoo lii jour nga di ko nga di ko fësal mm. kon defe naa dañ koy fësalaat saa bu ñu def émission te di ñaan yàlla rek yàlla defal ñu jàmm yi saytaane ba ñu dugg suñu diggante quoi mm. daal lañ koy defee boo ko defee boo ñëwaatee nag guddi gi mm. ñu defal soow yu ndaw ndawaan yi am gën a am mais guy gi dama mel lekk damay lekk <laughs> damay maase maara man yooyu nekkuma ci sax euh. maas bien donc maas bien dóor bien dormin bien dama man damay lekk loolu kii isaay parce que man damaa yor soxna su man togg yàlla damaa yor mm-hmm. soxna su man moom dafa sob <laughs> man sama soxna dafa sob li tax mu sob ci internet bi lay fanaan lu mu gis dina ko capté macha allah yaa yaa de mémoire bien lu mu gis dina ko capté su xëyee togg bu ko toggee da nga kii ndax dafa jàng dafa nekk autorité affaire yooyu fekk nag boobu day xam nga day day ci internet bi lay xëy ay bagage am quoi te des mu toggal a plate boo xam ni mm-hmm. ñi jàng waaw ñi jàng sax hôtellerie ñoom ñoom kiiwuñu ko quoi xamuñu ko mm-hmm. kon loolu tamit sant yàlla mm-hmm. parce que tamit mënoon nga am soxna soo xam ne xam nga ceebu ñebba la lay toggal dëxin sombi yooyu te du jaar yoon sax te du jaar yoon te na ngay lekk di gañe doo ci mën dara <laughs> mais comme que si yàlla ngay suturaal mi ngi lay toggal yoo xam ne yu baax mais mais guy gi la moo la gënal ci xar mi yow tabaski la moo la gënal lakk bi togg soo xaar mi moom maara li ma dox say Abdou Karim muy reetaan rek man ko ah. say Abdou Karim reyal ma soo ma reyee xaar daal mënuma guy gi loo ci soxlawul ci xaar mi ma ne ko ñeent tànk yi ngay génn bokk ci ak baat bi li des lépp soxla naa ko si Abdou Karim moom neen looloo koy te man loolu laa gëm xaar mi lépp lépp dama koy mangé côtelette yeeg lépp koy mangé calgéen bi yëpp lépp dama koy mangé moom bopp bi rek ngay génn bopp bi ngay te bopp bi dañ koy fees dañ koy supp bopp bi dañ koy fees dañ koy supp béjjéen daal mooy génn ak ñeent xar ñeent supp non ñeent dañ koy raxas euh, euh, lakk ko pour pour pour dans deux mois tam allah guy gi dafa mel ne mag a ko yar parce que li ngay wax noonu bareetul lu ma koy gis yow wësam ngay wax de waaw dañ koy man sama yaay dafa gëm aada ndeysaan sama yaay bu kii rek day jël jël temps ndeysaan di ko nuyu bu baax sama yaay muy koo xam ne vraiment yaay ju mat yaay la waaw moom sum ba ma xàmmee ba tey mhm. moo wax dëgg yàlla yaay ju mat yaay la man tamit ma am baay boo xam duma ni Euh, mais baay bu gën baay gis ngeen tubaarkàlla macha allah Mara Thiam sama doom sama xarit li mu dem yóbbu ci guy gi tubaarikàlla muy jàmbaari fàkk tëdd macha allah tabarakallah dans quelques instant nag macha allah dinañ leen indiwaatal yeneen i surprise Mara surprise yi jeexagul de tubaarkàlla teg leen foofu seen baaraam ma ñëw nag ak sama invité tey indil naa leen tubaarikàlla macha allah koo xamante ni bu nee der seen xel dina dem ci ñu bari tubaarikàlla macha allah ndax jomam fullaam faydaam ak mën a wayam tubaarikàlla macha allah eh, bay tey fii fii mokkuru mbox surprise rek lay doon. waaw mais salaamaaleykum. salaam Yves Niang. ajaratu Ngoy Mbaye. waa sama Yves. naa la waay nuyu naa la mais respect. mais li nga lii da def. baal sa plan lan la. sama plan de mi ngi nii rek. tubaarikàlla macha Pape Seck Touba ku ti dara du yomb dara du yomb dara du yomb. doomu ndey ne na Seck. dara du yomb if moon nañ la. waaw maa leen raw. di la wax nga baal ñu àq. baal na leen yàlla nañu yàlla boole baal. tubaarkàlla macha allah ñu di la tey ci la télévision 7TV. télé bu mag bi nga xamante ni tubaarkàlla macha allah lu mu bokkul baaxul. waaye ku ko seetaanul gisoo li xew ci dëkk bi. macha allah tubaarkàlla ñuy nuyuwaat nag borom télé bi bu baax muy nu Ndour Faye di ko baalu àq. di ko ñaan yàlla mu baal ñu yàlla nañ yàlla boole baal muy jigéen ju am jom Yves jigéen ju am fula jigéen ju am fayda waaye jigéen ju xam boppam tubaarikàlla macha allah mboolem ku fàq ànd ak moom may mun a teg na la place amul kenn koo xam ne rek yaa ngi ci tele bi may mun a foowe la wala mu sàggane la wala mu ñàkkal la fayda jigéen ju baax jooju tubaarikàlla mu ubbi la 7TV tudde ko nag laa télé qui nous ressemble et nous li ñuy nduru ba nopp te duñ dajale ajaratu ngoy da ngaa wax lu baax may Maimouna Ndour dafa nekk jàmbaar émission bi may seetaan yi mu doon def di invité politiciens yi mhm. da xam ne kii jigéen ju am mhm. jigéen ju am fayda la mhm. ndax kilifa yi du n'importe quel moo leen invi ñoom ñoo leen woo ñuy ñëw dëgg la barki démb rek euh, bi mu invité Doudou Ka ñëw naa fi ak bi mu invité Farba Ngom maa ngi koy seetaan kilifa gu baax ci réew mi rek dalal na la kon télé bi vraiment man sama télé la. sawar naa pour ñëw fi tey nag. Mm. li tax ma gën a kontaan. Mm-hmm. yow da sama jigéen di sama xarit sa yaay bëgg ma. ndeysaan sa frère Mamadou Mbaye Garmi sopp ma lool di sama xarit. ndeysaan waaye gëjoon nañ ma gis. Mm-hmm. mais ki tax ma jóg. Mm. ki tax ma génnaat def morceau bu rëy. Mm. day sama nawle. di sama xarit. Mm-hmm. di papa Cheikh Diouf. ñu bokk dëkk Pikine mhm. nekk ay ndaanaan mhm. chéri bébé baas ma dëgg la foofu sargal Pape Diouf waaw de laa dégg waaw delloo njukkal Pape Diouf delloo njukkal Pape Diouf mhm. waaw waaw lu xew seen diggante Pape delloo sama xarit ba pare euh, tàgg boo gis am na jàppal diw te bëgg goo gis yéeg moo koy fay Pape Diouf dafa ma bëgg ba gëmewu ma ba ma dem ba xam loolu xam nga sa nawle bëgg la ba nga dem ba xam ne kii dalaa bëgg mhm. sentir la ba nga xam ne kii dalaa sentir mhm. sooy way mu koy bëggee mhm. te ni ma bëggee barke Seydina Mohamed nu ko raw laa ko bëggee dëgg la parce que man ay waayam attanu ma ko su ma demee soirée bu ne wuy léeg rek maa ci suuf baa ngi déggal lii barke Seydina yaa ñàkk ñaan muy ndaanaan mën a way lu neex te ñun ñi nga xam ne ay artistes lañ nekk troisième presque génération ñun am na luñ ñu jàng ci ñoom Alioune Mbaye Nder mm. am lu jàng ci ñoom Youssou Ndour ñoom Youssou Ndour am lu ñu jàng ci leneen te puso bi warte réer ci ñun mm-hmm. macha allah ñu war a war a nag bon exemple mm. parce que suñuy rakk ñu ngi suñuy suñuy tànk mm-hmm. macha allah di liggéey liggéey bu rafet mm-hmm. mais aar bi dafa toll foo xam ni lu ñu war a defaraat la lu ñu war a jujjantiwaat la parce que way yombul mm. nekk ndaanaan yombul ku daan déglu ñoom Ablaye Naar Samb daan mhm. déglu Samba Jabare mhm. daan déglu ñoom Laay Mbuub mhm. waykat yu mag yooyu Pa Badara ba jusqu'à présent du dañ kon ñun ñi nga xam ne ay artistes lañ am ñoo xam ne féete nañ ñu mag ñu jox leen cër am ñoo xam ne ñun ñooy seen grand frère il faut que ñu wane bon exemple Njaga Mbay dani bu njëkk ndaanaan daraan jug seeti moromu ndaanaanam dëgg la mu jël mu jël ko yóbbu ko ci ay géeram kon Euh, tuuxkati cigarette sax. ñooy mhm. mayante ko. lay dëggal lii. kon nag Pape. Mhm. bu dee suma xarit sama nawle bëgg ma fonk ma li ma war moom mooy ma delloo ko njukkal way ko parce que ku la bëgg dafa foor. Yves yow yaa njëkk a way Pape wala am na yeneen i artistes yoo xam ne way nañ Pape Diouf. Pape Diouf ñu ko way bëri nañ waaye nag ndaanaan bi ko way nii. Mm. xam na ne ndaanaan way. ndeysaan. te wayu buur nag laa ko way. Mm. te xam naa ne moom it dina du gis yow way ma wayu rëy. ndeysaan ndax kenn du ko jam dina dugg studio way ma woy wu rëy moom la Yves Niang wax mm-hmm. Pape Diouf di nawleem mm-hmm. ñoom ñëpp ñu ay doomi Pikine mm-hmm. tubaarikàlla macha allah wax na ko léegi dëgg la ñi bokku teen rek ñooy laxasoo ay gocc kon tubaari tubaarikàlla macha allah Papa Thione waxoon na ko gumba yi ah, booloo nañu lafa ñi booloo nañu ñëpp booloo nañu lu tere ñun ñu booloo tubaarikàlla macha allah Yves euh, bala ñoo dem lu tax ñu gëj la gis. dama génne album international. Mhm. parce que man damay def world music. Mhm. world music nag boo koy def euh, xëy na dinañ la gëj gis ci télé bi. parce que mhm. da ngay nekk ci yeneen vibes. mais comme ndaanaan da nga war a bëri ay ruq ñun dañuy way ci afrobeat man ci simbi laa commencé ak mbapat yi. ak tànn biir kasak yi. mais tey jii boo demee l' festival yi. ay afro nga fay ay jazz ay blues. Mhm. ay afro mandeng mhm. ay traditionnel. Mhm. mais yooyu boo ci nekkee il faut nga xaw a daw chaîne national bi tuuti. mën nga arrière tuuti ak ñu ci kasak wala simb. waaw tuuti rek waa demal ma dégg <laughs> tubaarikàlla. <laughs> tey la samba yaa ne ngaan tey la samba yaa ne ngaan mbay mbay yaa baax ñi doo seen morome asim laay ñoo ngi dooree jamtaagu borom Agel Fall ñi doo seen morome loolu way làmb la waaw xam nga Yves boo dee way yaram yi day daw mais boo dee woy xel yi day dem ci ndongo mm-hmm. sa doomi ndey jooju mm-hmm. sa xarit boobu mm-hmm. loo koy ñaanal bi su tey bii jam jàll mi ci jaaj Fall ma sambande na Fall li may wax rek xajoon na fi mm. Ndongo Lo moo fi def at yu néew ci way vraiment bàyyi fi liggéey boo xam du fay ba ilaa yawmi diin mm-hmm. ndax man ak moom dañoo ànd ay at yu bëree bëri wayandoo simb wayandoo kasak wayandoo mbappat wayandoo tànn biir xale yu ndaw yi ngay gis tey yëpp ñuy way ginnaaw yàlla dañu doon seetaan di ñu bëggee mm-hmm. di ñu topp ñuy liggéey liggéey bu rafet mm-hmm. kon ndonga fee mu nekk tey ji yàlla na ko gënal fi nga xam ni fii la jógee ci barke Seydina Mohamed ndax ndonga du deñ mukk ci xol yi ak xel yi ndax bëri na ay xale yoo xam ne léegi bu ñu yuuxoo rek nga xam ne ndongu loola dégg naa maye nga doomam waaw aram maye nañ ko ndeysaan macha allah mi ngi sëy man it sama doom mhm. maye naa ko ba am na doom ba am na doom barki dem ndeysaan waaw léegi ay mag lañ <laughs> waa tubaarkàlla macha allah léegi ay mag lañ mais mais prestation bi may def waaw dama koy may. Mhm. sama yaay Ndeye Ndumbaan. dafa baax ne mag mu baax. ba léegi rek ci groupe bi rek. ndeysaan groupe bu ajartu Ngoy Fall bi. waaw ak euh, Mariane Silla. Mhm. ndeysaan mu ngi ciy wax lu baax. ndeysaan di wàcce wat sa émission bi. Mhm. Euh, affiche yi vraiment may nuyu nag waa kër Ngoy Fall gépp. vraiment euh, di ko jaale yaayam li nga xam ne barki démb rek moom la ñuy jooy te noppeeguñu. macha allah groupe bi gis naa ni ñu ko téye. di may prestation bi nag. sama sang sama xarit muy Alsaan Mbaye vraiment kooku sama sang la mm. demagu te tey nag dew ma fa korte gi joxoon na ma yëre mais tey dew ma fa ndax temps bi moo amul di nuyu jabaram macha allah maanaam mm. waaw di nuyu nag sama fans yëpp di nuyu sama yaay ji nga xam maa ngi ko bàyyi sama kër yàlla na yàlla guddal fanam ak sama famille yëpp ak sama jabar vraiment di wax ni daal mm-hmm. prestation bi nag maa ngi mm-hmm. koy may Angèle Fall suma jigéen tubaarkàlla kon Grand Yoff daf ne prestation bi mu ngi koy maye kon du ñu def lu dul macha na rek penda macha allah wala Pape Maguette ñu delloo njukkal Pape Diouf ñu delloo njukkal Pape Diouf. waaw la Barba Cheikh Diouf mooy sa baay yaa jàll

la bàyyi caam mooy sa yaay doomu ndey Papa Seck doomu ndey Nene Seck doomu ndey Bour Gueweul dégg li Yves Voye xam ne ndaanaan yëngooti na tubaarikàlla macha allah te Yves bu olof nee doomi mbër jàngil bëri yàgg yàgg des na la ñam olof juumul mhm. yaa mën a way ah, dañuy jéem rek barke Seydina Mohamed yaa mën a way dañuy jéem rek te xam nga li gën a neex mooy ngay way way waa am am mbëf am mbëfër am daaneel. dëgg la. ba pare ànd ak ndeysaan. dëgg la. way nga ko sama nijaay Mor Gueye benn Yaasin. dëgg la Mor muy wayu neex. Mhm. jaala ko ma jokkoo dem jaala ko xam naa ni sax. dina ñu ci laalal. Mhm. macha allah ndaxte tubaarikàlla waa régie sax seen yaram a ngi daw. ndeysaan. sa digganteeg Pape Diouf. Mhm. à bu ngeen maasee jamono. complicité bi lan la. waaw complicité bi xam nga ñun nag dañu dëkk Pikine mhm. te Pikine dafa nekk dëkk boo xam ne ñun ñëpp ñoo bokk ak baay mhm, mhm. te bu weesoo loolu nag man euh, dañ ma fal ma nekk président collectif des artistes musiciens de Pikine Ablaye Thimbo suñu maire bi jox ma ay bureau ci complexe bi ma jiite artistes banlieue yëpp vraiment mu nekk liggéey bu rëy boo xam ne ñuy waaj ay festival di waaj yu bëree bëri di waaj ay album international di laaj di laaj ay liggéey bari mais comme da nga ma laaj suma diggante Pape Diouf mooy li ma la waxoon léegi rek bëgg koo gis yéeg moo koy fay. dëgg la te Pape dama ko bëgg ba mu xam ko. dëgg la waay. muy sama nawle mu bëgg ma lool ba ma xam ko. ndeysaan. kon loolu sama papa dani ma léeg-léeg nit bëgg la te defaloo ko dara. Hmm. léeg-léeg nit bañ la te defoo ko dara. Hmm. mais ki la bëgg. ba pare nag ngeen nekk ay nawle bokk métier bi ngeen def. Hmm. te nag vraiment mu di ma teral. lu mu am di ko bokk ak man barke Seydina Mohamed bàyyi ma a xiif bàyyi ma ma mar bàyyi ma ma rafle paap lu mu am billaahi wallaahi su ma ko woowee téléphone ni ko paap soxla naa lii du teg baat bu bokk ak man kon kii am teraangaam di ko bokk ak yow di la teral ba pare bëgg la safoo la mais loolu géer gu la ko defal nga way ko Yves dafa mel ni géwél yi ay xaritam lañu mhm. parce que sa digganteeg euh, Pape Diouf mhm. mooy sa digganteeg Alassane Mbaye mhm. maa ngi koy xalaak ma sin dem ba góor ma bi ñaan paate xëri borom lamb yi ci njaxeer barki dem rek tubaar kàlla ba mu wootee grand théâtre dinañ xam ne xam nañ ni doomi mbott ndox du ko rey tubaari kàlla macha allah te doomi màdd nag ak tol mm. jarta ñaanal forox bu màggee tollu lay def dëgg la tubaar kàlla sa diggante ak alsaan alsaan maa ngi koy waajal lu rëy ndax dafay dafay sama sang mm. may jaamam mm-hmm. alsaan lu mu sol maa ko moom mhm. maane mbaay moom it di sama rakk di sama xarit ñu bokk Anta Mali gën a paal ma jigéen bërëm farba samba wallaay ndeysaan sapend mbo bokk ak sama doom bokk ak Mouhamed Mbaye <laughs> kon moom it teraanga ji muy def barki démb bi Cheikh Fall di xew maa ngi fa mhm. woon dëgg la keroog daje nañ fa ma ak yow wallaay maa bëgg dama doon ñëw mhm. nawleem yëpp di ko fekk. ñu ko indil ay teraanga. dëgg la muy jël teraanga yi di ko delloo nit ñi. keroog bi muy def anniversaire bi. Mhm. dama doon joué mbuur. Mhm. mais keroog assisté naa. wallaay ba mu war a fas bi. dëgg la ma taxaw bàkk ko kañ ko. doog a taal sama oto dem mbuur joué. maa ci àndoon ak maa ngi fa taxaw nga taxaw wallaay dëgg la. ba ma paree damaa dugg ci biir deux minutes laa fa toog dem joué ju mbuur. Mm, parce que lu ñu nekk nekk nekk ay naw nekk ay xarit boo amee bis. Mhm. da nga koy respecté te contrat la femme tous les vendredis. Mhm. may joué Mbour l'ex club. dëgg la chaque mardi maa ngi joué. Mhm. fii ci la payette. yoof c'était bés yaaw ko ci plage bi. fa laay nekk xam naa di nga jàpp benn jour. incha allah ànd ak ñoom Baba bi waa kër gi ñëw ñëw fekk ma ñëw sax indaale 7TV. ñëw indi 7TV. lu lay tàggatoo. waaw lu may tàggatoo daal mooy di la bëggee rek. jërëjëf ñang damaa lekk ci yàpp yi nag ba baat bi fi ne <laughs> diwlin ji jàpp ku lay summi mais faale nii mais ak Basirou Diagne Basirou Diagne moom tur na moo sant Diagne mais xam naa te mujjal ko mais day wallaay ndeysaan waaw émission bi dina neex ndeysaan parce que mm-hmm. ay ndaanaan rek nga fi dajale dëgg la Yves dëgg la ñuy samay rak wallaay ñaa dëgg la man lañu def nga def nag benn tànneef boo xam ni mm-hmm. xam naa ne tey fii dina toj non fii day toj parce que tey jii ñi nga boole mooy ñoom Thiat Seck ak ñoom Maguette Mbaye wallaahi Bassirou Diagne Moustapha Seck Samara vraiment mën a way ni xale yooyu nga xam ne ay daaraan lañ bilaay dëgg la tey ma ñëw rek nekk seen mag ubbil leen dëgg la xam naa ne fii xel bu mm. sedd dina di wax ne nag morceau bi mu mm-hmm. ngi doog a génn fii laa ko njëkk a play ba saan yow yaay première personne bi nga xam ne. Mhm. ci yow laa ko pële nga ñaan dama bëgg nag nga def ci ñaan. Mhm. parce que bientôt incha allah dinañ ko def clip bu rëy. day warum réew. waaw clip bu rëy. man sax dinaa dugg ci clip bi incha allah. dañ lay invité nga ñëw. woo. dëggal Baas da woo. ñu ko clip bu rëy. macha na yàlla doole xew. kon Yves Toubarkalla. Angèle Fall jëlal li ma fi joué yëpp yaa ko moom. waaw Toubarkalla mais dafa am soo may dëkkandoo West Foire. ñoom Karim. ndeysaan Karim ak Assane. Mm. dañu nekk nit yu baax. ndeysaan ak vraiment ñoom Awa Sarr. dëgg la allah waa kan ay meeru caam yi. dëgg la Awa Baba Caam bëgg ma lool. ndeysaan macha allah. di wax ni li ma fi joué yëpp may naa ko waa West Foire. may naa ko sama fans yëpp may naa ko waa Pikine. gépp kontaan nañ ñan kontaan nañ ñan bi rek yuuxu ko dem. kumba jokko mooy seen maam. waaw waaw. ndikku mooy seen yaayo. paate njëre mooy seen baay. Angel Fall dama lay jiin duma tay di la jiinoo Adi Fall mooy sa baay borom Grand Yoff dama lay way Angelo dama lay way Angel Fall garmi baange jërëjëf surtout maam Serap Fall bi. kontaan macha allah kon kontaan nañ kon tubaarikàlla Serigne Diagne doomi ndey Ndumbaan Mbay